الشيخ الفضيل الجليل الخليفة الفيضة التيجانية في حضرة مولانا شيخ إبراهيم نياس في هذه الحضرة البومحمدية القادرية نحييكم تحية مشيعة بكل احترام وتقدير ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا في بلدكم الثاني وبين إخوتكم فهذه التربة الطيبة ألفت آثار أقدامكم هنا كل ذلك من أجل صلة الرحم فأنتم الآن أمام أخيكم ومحبكم شيخ أبو محمد ابن شخص المختار ابن شيخ أبي محمد الكنتي فلقد ابتلي بهذه الخلافة فأصبح خليفة عاما للطريقة القادرية قال لي يوم أمس إن هذه الخلافة ليست شرفية إنما هي تكليفية فها هو الآن ينوب عنكم وعن بقية الخلفاء لطرق الصوفية في هذه الحضرة التي أنتم أولى بها منه فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم وهي لكم الكلمة إن شاء الله بعد ذلك سوف نفسر أو نترجم هذه الكلمة إن شاء الله باللغة الولفية قبل أن أعطي سماحتكم هذه الكلمة بقي دما نيورك نيوك موم ndax gan soo ko amee danga koy rey li mu bëgg te ganu xam-xam su wàccee ci dëkk muy dëkku xam-xam lañu ko mën a jëkk a terale moo di ñu tegal ko ndabal xam-xam donte kii yanu ndab li nag di ko teg mënu koo lekk mënu koo seddale waaye moom dina ci xamee yéene ki nga xam ne moo jàpp ndab li teg ci seen kanam muy man mii teg naa ndab li waaye mënuma koo seddale mënuma ca lekk moo tax moo ko doon lekk dinaa ci tuur waaye yéen yi nga xam ne yéen xam ndab man koo lekk te du tuur ngeen mën ko séddale te xam cër yi ngeen koy séddalee sëriñ bi nee na mi ngi leen di dalal ci seen ëttu maam ma wax rek ni suuf sii day min na tànk yi fi ñëw tey ndax du tey yàgg na lool ñu ñëwoon fii di seet si sa di ko nemmeeku bi magam gaañoo lañ ko jaal si ñu tagaat ba ñu toogaat ba mu yàgg ñu ñëw seet si ko moom itam mu di ñu yónni ñu dem ci béréb ba di doxal la nga xam ni moo fa nekkoon démb ndax dañuy wax ni al abaau salaasatun abun waladaka wa abun rabbaaka wa abun allamaka moom nag yàlla def ko sédde woon ñaar mooy at taalim wa tarbiya jàngal nañ ko foofa yar nañ ko foofa kon Mawlana Cheikh Ibrahim Niass way juróom la woon ci ñaari wàllu yooyu yëpp kooku kon su ngeen daan ñëw di ko seet si di saafoonteeg moom mu yónnee ci yéen ngeen di teral ay njabootam di teral ay ndawam tey ngeen wëlbatiku ñëw ñëw ak tànku njaal wane itam seen naqar woo xam ne munu ñàkk ci doomu adama ndax loolu lañ noonu lañ ko mën a tuddee waaye ngeen bëgg a ñëw bokk ak moom tiis wi sëriñ bi nee na mi ngi leen di dalal ci seen kër di leen wax rek ni moom da leen fee wuutu waaye li fi nekk yéen a ko fi ba te bu ngeen xasee toog amatu ca dara yéen rek la ciy déglu loolu rek moom moom laa waxoon ci baat bu gàtt ci langu arab moo tax ma firiko bu ko defee ñu jox leen kàddu ki ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal di wax rek ni ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kii sëriñ bi mooy sa mbokk di sa rak di Cheikh Mahi Mahi Niass Cheikh Mahi Niass doon dund ak samak fële ca xadra eh, alfaydiya tijaniya Cheikh Mahi Cissé ku ñu xam la ci xam-xam xam ko ci dal xam ko ci yar moo ànd ak moom mooy porte parole lu dëkk ba ñi ci xam naa ñoom bu ñu jëlee incha allah danañu ko xamle ah. ah Mahdi ah ah nee na mu ngoog ñoom ñëpp kon ñu ngi ci yoon wi muy ñaari rakki sëriñ bi yoo xam ni ñu ngi ci yoon wi di ñëw ngir mottali délégation bi pour joxe seen jaal xam naa di ngeen ñu baal ndax sàng bi ngeen di ñëw dafa fekk délégation Algérie mu ñëw président euh, Abdou Majid Taboun yabal leen. ñu ànd ak seen ñaari conseil président yi ñëw ma nekkoon ak ñoom waaye léegi bi ñu waxee ni dama leen a bàyyi foofa ñëw ànd ak yéen fii pour xam li ngeen fi doon ak ni ngeen fi toll salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulillah alhamdulillah alladi xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu amala wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam alladi taaba xayan wa mayitan alhamdulillahi alqaa'il wa lanabluwannakum bi shay'in min alxawfi waljuu'i wa naqsin min alamwaali walanfusi walsamaraati wa bashiri assaabiriin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun أتينا زائرين مع الخليفة خليفة الشيخ إبراهيم صاحب الفيضة وخادم الأمة المحمدية شيخ مولانا شيخ محمد الماحي إبراهيم يس لتعزية في هذا المصاب الجلل هذا الخليفة الذي كان حقا منا ونحن منه ربيب الشيخ إبراهيم الذي كان يخصه الشيخ بالعناية وبالمحبة الخاصة وهذا هو الذي جرى بينه وبين الخليفة الشيخ محمد الماحي كما كانت العلاقة بينه وبين أخيه الشيخ مصطفى كنت الذي تعرفونه ونعرفه laa nuridu an nutila fi lkalaam innama numahidu lkalima lil xalifa cheikh Mouhamed El Mahi ñi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la amruka marraziyatu faqdu maalin wala chaatun tamuutu wala albairu walakin arraziyata faqd qawmin yamuutu bi mawtihim xalqun kathiru hada xaqiqatan yantabiq ala faqdi hada arrajul alazim alladi kaana ruknan min arkaani hadi al ummati al muhammadiya ñu ngi koy jaale jaale boo xam ne bu xalifa bi teewee cheikh Mouhamed El Mahi ndax moom lañ koy jaale ndax bam demee ba léegi nit ñaa ngi koy jaale mel ni Medina xam nañ ne kenn lañ ñàkk ci ñoom liñ war a wax ci moom sëriñ bi xam na ko liñ xamut ci moom moom xam na ko ndax dafa dund ak moom ci zëlli Cheikh Ibrahim waaye benn baat rek laay nettali wane itte ji nga xam ne moom la bàyyi joxoon kër gi ak xalifa bii dem am na mag mu mas a ko sama doom la joo xam ne gis naa ne ndab lu mën a def xam-xam la moo tax bëgg naa ku ma ñaanal ci moom loolu rek doy na sëriñ bi ku nekk xam na itteem ni mu xam na jotam ni mu ñàkkee bu toogoon Medina moom lañ ko jaale waaye dafay ñëw ba fii képp ku aju ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñi nekk Medina yëpp yëg nañ dej bi de waaye tey ñëwam fii dafay nekk jaale boo xam ne dafay dem ci alam bi yëpp ndax fu taale taalibe nekk rek dana xam ne li tax sëriñ bi ñëw fii dana ko laajte te bu ko laajtee dana ko ñaanal te dana ko fàttaliku moo tax eh, ñëw na pour jaale pour ñaanal xalifa bii fi nekk waaye ñu nit ñi ngi ñaan moom mu ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko fi dëgëral ko mottali ay sembam ndax sembam yëpp du dara lu may luy jëriñ umma bi gisuma man ci sama sellu xalifa boo xam ne ci Sénégal mu ngi ittewoo senegal ak jàmmi Sénégal ni mu ko ittewoo ndax du wax ñaari baat lu may dugal na ci loolu du wax ñaari baat lu may fàttaliku na mag ñi fi nekkoon ndax niti taarix la xam ne taarix nan la toll kooku moo ñëw alhamdulillah ki ñëw xam ngeen ko moom it xam na leen bëgg ngeen ko moom it bëgg na leen kàddu yi kàddu yi mënta ñàkk rek la pour tamhid waaye moom mooy saaxibul kalima kon ñu jox ko kalima bi salaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah مولاي السيد الخليفة الحضرة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيء إليكم من مدينة كولة بقلوب محبة لكم وبذكريات تجمعنا وإياكم قديما هذه ذكريات التي تحيا أبد الدهر لأنها تأسست على الإيمان بالله ومحبة له وتعلقا برسول الله ومحبة لآل رسول الله مثلما أنتم وقد جئتم من مدينة وكل مدينة وكل المدينة أيضا جاءت معنا لمعرفتنا بهذا الرجل الذي فقدناه كأنما فقدناه في مدينة لأنه واحد منا كما هو واحد منكم وعاش بيننا وعشنا معه إخوة صغارا كان يربينا ويرشدنا ويهدينا وكان أيضا رفيق درب لإخوتنا الكبار وكانوا أصحاب درس واحد عند المعلمين والأساتذة وعند الشيخ إبراهيم وعشنا أسرة واحدة وعائلة واحدة وقوما أيضا واحدا لأننا جميعا كما قلتم في كلامكم أن هذه العلاقات التي تجمعنا أكثر من أن تعد أو تحصى لأنها علاقة ابتدأت من الإيمان بالله والتعرف إلى xaqiqati haza al iman wa taarufi ila xaqiqati al amal bi haza al iman wa taarufan aydan ila al insani allazi akramahu llah wa taarufan ila al insani aydan allazi qaala fihi inna akramakum inda allahi atqaakum ولقد ورثنا من آبائنا وأجدادنا كما من آبائكم وأجدادكم أن حقيقة الإنسان في وجوده هو التعرف وتقرب إلى الله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نجيء هنا توكيدا لتلك الروابط أنها ما بليت ولن تبلى وما تقطعت ولن تنقطع لأنها علاقة ربانية نسجتها بأيد صالحة من هنا ومن هناك حتى أثمرت ما أثمرت بيننا من التعارق ومن المحبة ومن تبادل كل ما يمكن أن يتبادل بين الإنسان وآخر الإنسان فيما فيه نفع له في دينه وفيما فيه نفع لدنياه وفيما فيه نفع لعلمه والمجيء إلى نجاسا أيضا شرف لنا كما كان شرفا لنا من قبل لأننا نعرف أننا ناتي قوما ينتمون إلى رسول الله sallallahu alayhi wa sallam wa man ataaha allahu lahu fursata ziyarati ali bayti rasul allazi talaba minna rasul an nuhibbahum fa haqqan hadhihi aidan fursatun min alfuras allati tutaahu lillazina taaalaqu billahi wa taanaw billahi wa tarabbaw fillahi tabaraka wa taala wa hadha huwa majlisuna حقيقة كل مدينة جاءت معي ها؟ آه لأننا في مدينة حزنا كما حزنتم وفي مدينة دعونا له كما دعوتم وقرأنا له المصاحف وعلمنا أن واحدا كان من أهل مدينة وذهب إلى أنجاسان وتوفاه الله هناك كما أن أهل مدينة أيضا قد يأتي هنا ويتوفاه الله هنا أيضا وهكذا لأننا لأنها علاقة إنسانية وبشرية ودينية وعلاقة فوق كل اعتبار لا يحاسب فيها أحد إنما نحب إنما نحب خلاص فلا تحاسبني في حبي ولا أحاسبك في حبك ونحن حبينا بعضنا لله تبارك وتعالى وعرفنا الشيخ بكاي الخليفة الذي ذهب وكان أحمد محمد محمد ومصطفى كنت وبكاي كنت كل هؤلاء كانوا زملاء لنا في في في دربة في في درب العلم وفي درب المعرفة وفي درب التكسب لما فيه خير للإنسان في دنياه ودينه وهو العلم بالله تبارك وتعالى وتعرف إليه فنعزي أنفسنا ونعزيكم في هذا الفقيد الغالي علينا ونسأل الله تبارك وتعالى له كل الخير wa kulla alfadli wa kulla niam incha allah xata yurihi ahibatahu rasulullahi wa ajdaadihi almuntamina lahu sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax ci ci jotaay bu tedd bi nga xam ne ak teeru bu tedd bi nga xam ne dafay wone ne dëgg-dëgg nit ñu jar a gane ci nit ñu jar a gane nit ñu jar a toogal lañ nit ñu jar a amat alaaka lañ moo tax gis nañ ci suñ bakkan gis nañ ci suñ bët lu ñu gis nañ ci suñ bakkan lu ñu yéem loolu yëpp dafay wone anna sharafu fi makaani anna sharafa fi makaanihi anna sharafa fi makaanihi wa shurafa hum allazina yusharifuuna shurafa wa gayru shurafa hada dabukum wa sajiyatukum alaamatikum fi diini wa dunya moo tax ñuy sant yàlla bu baax a ñëw Njaasaan ngir won leen ne Médina ak Njaasaan ñoo bokk même même euh, xaw ma jàqare la ñuy wax xaw ma ñoo em même jàqare ñoo em même tiisoo ñoo em même euh, yëg ah, bi nga xam ne yëg nañ ko ci nit ku tedd kii nga xam ne ñàkk nañ ko waaye niñ ko ñàkkee ci fii ci Ndiassane noonu ñu ko ñàkkee fële ca Mérina ah, moo tax waa Mérina yëpp ñëw nañ ngir bokk ak yéen haadihil ayyaam asiba ñaan yàlla yal nañ ko yàlla yëkkatil te yombaloon ñu ko bañ génn ko ci jàmm ñu ngi ñaanal yàlla ki nga xam ne yàlla utul na ko palaasam yal na ko yàlla dëgëral yàlla jàppale ko ci mission am ba mën a continuer li nga xam ne moo fi nekkoon ci. nashrul xayri nashrul ilm nashrul diin nashrul maarifa loolu moo fi nekkoon te loolu du dagg mukk la àddina te ñu ngi yaakaar yàlla yàlla dimbale ci nga taxawoo ko ni nga xam ne moo jar a taxawoo ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi jaale ñëpp ñu ngi jaale suñu bopp salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi lay bisimilah nga dal jàmm ñëw nga ci sa këru bopp wax ngeen ko ci seen biir wax. nit mbokkam ñëw na bokk ak moom diis woo xamante ne xam nañu fu ñu koy jële waaye xamuñu fu ñu koy yemee parce que nit ki nga xamante ne bëtam dafa xonq ñi ñëw fompale ko ko ñooñu mënatu leen a fay xam nañ sa diggante ak xalifa bi fi jóge bu yàggul doomam ji lañu yabal ñu ñëw maag papa bi nga jógee tukki ci luy fa def mu bokk ak yow bànneex boobu kon tey bu tiis wi ñëwee nga mobiliser Médina yëpp ñëw wax ji fi wax fi wax ji xam nañ ni bokk nga bokk deret nga bokk diine nga sëriñ bi li muy santaane toujours yéen a ngi ci dañ leen fekk ba sunuy bàyyi demoon fa di ko jàng mooy lislaam bi ñu gën koo dooleel ñi seen loxo gën a sori nañuy wax ci loolu boole njaboot gi ndax nit ki bu xolom tojul ci lislaam du am yërmande nit ku xolam toj dëgg dëgg dëgg du néeg a def lu bon rayante bi bari na lu ñaaw li bari na kon sëriñ bi mi ngi lay dénk boppam di la téye yawit ngeen ànd bokk defar ñëw nga sa kër njaboot gaa ngi nii ki fi jóge waajuram ak moom mi toog waajuram ñoo bokk waajur wu jigéen ak waajur wu góor Cheikh Al Bekkay la ak Sidi Maxtaar Sidi Maxtaar moo mooy waajuram Cheikh Albekaay mooy waajur ñoom ñett la ak Mariama benn jigéen kon loolu sotti ci ak def ci la bu fekkee magam dafa daan ànd ay magam muy Moustapha ak Cheikh Albekaay ak sëñ mahamed nekkoon foofee ngay ànd ak ñoom bu njaboot gi ñëw ñu teral leen ba doomam nekk foofa ci yéen ngeen def li ngeen di def ci moom ba ñëpp mën koo xool ñu bég ci sëñ bi nee na kontaan na nee nga daal jàmm moo la tontul boppam waaye yaram wi léegi la am lu mu jël yaa ko tax a génn kon ñu ngi lay dala jàmm ci sa këru bopp di la bisimila yaag sa njaboot gi nga àndal yëpp te xam ni njaboot nga bàyyi fële njaboot nga fekk fi see ñëpp say njaboot lañu yow mën ngaa wax wax tontu sa bopp ndax da ñëw ci sa kër ñëwoon nga démb ñëwati tey kon njërëjëf kontaan nañu ci ñëw bi nga ñëw jërëjëf.